jërëjëf Fallou xam naa ci kanam tuuti dina dinañu euh, xuus ci biir waxtaan wi waaye mbokk yi ñuy amaat tamit ci plateau bi euh, Adama Bopp Adama Bopp ku ko wax wax làmb ku ko wax aussi wax Mbaye Guèye ku ko wax wax duubal lees parce que yàlla dafa dogal mu fekkee làmbi démb fekkee làmbi tey mu nekk aussi porte parole du CNG di koo xamante ne ni xam-xamam dafa màcc ci làmb moom aussi mu ngi ci plateau bi ñu jox Adama mu nuyoo Adama nuyu dañ la. maa di nuyu ñi ma fi toogandool di nuyu d'abord euh, seen direction générale ak personnel bi yëpp euh, nuyu la yow nuyu Max ku sonn ci làmb mhm. nuyu Fallou promoteur euh, nuyu Jili mais nag di ko dooree ci njaal ndaxte dafam am tiis bu daanu suñu kaw mu génn àdduna Double Less di bàyyi ci Balla Gaye ak Sa Thiès mhm. nga xam ne raaye Sénégal yëkkati nañ ko oh, bu dul benn du ñaar ndax Double Less champion d'Afrique médaillé mhm. nga xam ne Double Less làmb ji daf ci dafa jox àddunaam yëpp daf ko jox làmb mhm. ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko yàlla na ko yàlla xare amiin di yeesal njaal aussi ci mbay Gueye ak euh, kenn aussi ku bokkoon ci ci ñun CNG muy Babacar Thioum doon président commission euh, organisation mhm. Euh, bu loolu wéyee nag maa ngi nuyu famille làmb yëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci suñu loxo président Bira Sène euh, jërëjëf jërëjëf aadama mais mbokk yi aussi xam ngeen ne plateau bi euh, Djily Wade mu ngi fii di un très très grand ménager nekk ménager ki nga xamante ne nii mooy guy gii Djily Djily ñu ngi lay ñu ngi lay dalal jàmm ñu ngi lay nuyu. waaw Raye ñu ngi lay fay. di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo toog ci plateau bi Fallou Ndiaye mag sa Mbargaan ak Adama Bob di ziar di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre euh, Sen TV téléspectateurs yëpp ñu ngi leen di nuyu ah di def comme ni ñëpp def rek jaale Double Less ku xam na ni Double Less wax dëgg yàlla CVM néewuma Sénégal am fi def naa li mu fi def kenn def ko mm-hmm. yàlla na ko yonent bi di nuyu waa Géejawaay di jaale waa Géejawaay yëpp Double Less di ko jaale Balla Gaye du ko jaale Sa Thiès di ko jaale axlu làmb yëpp di nuyu euh, waa ARELS président bi di Malick Ngingue di nuyu euh, regroupement des ménages <coughs> teg ko ci loxo président Babou di nuyu taxaw làmb Thiès président bi di Ismaïla Mbow di ziar ñëpp di nuyu ñëpp lépp lu ñu fa wax rek yàlla na doon njariñul làmb euh, jërëjëf jërëjëf Jili mbokk yi di jaale nag champion bu mag boobu nga xam ne Euh, defal na lu nekk Sénégal def na lu nekk ci biir réew mi muy Double Less mag wax nga ko léegi ñuy ñaan yàlla sunu borom yàlla oyofal suuf ci kawam mu nekk un très grand champion nekk l'un des meilleurs lutteurs sénégalais de l'histoire yàlla dogal mu dem fu nekk ci biir réew mi euh, représenté fa Sénégal yàgg andil tamit Sénégal médaille parce que Double Less nekk na neuf fois champion d'Afrique nekk na fi sixième mondial def na lu nekk pour Sénégal boo fàttali ko euh, Munich 72 Montréal 76 Moscou 80 Los Angeles 84 Séoul 88 ba Barcelone 92 toujours Double mu ngi dem bitim réew di défendre les couleurs nationales kooku nag la réew mi ñàkk ñuy ñaan yàlla sunu borom mu xare ko àjjana mu def aussi les beaux jour de la l'arène sénégalaise daje ak Mbaye Guèye waxtaane nañ ko fi keroog Alaaji Max Mbargane daje ak Papa maa ngi rappelé wu année bi nga xamante ne nii Papa dafa tegle kaaw yi dóor booy ko mu daanu dóor ndem si àll si mbéygéey mu daanu dóor Robert mu daanu dóor booy bambara mu daanu bi mu dajeeg duubal lees duubal lees daf ko dóor mu daanu loolu nag mënul ñàkk parce que xam ngeen ne l'histoire réveille les morts te aussi bu ñu fi toogee di waxtaan foog aussi ñu fàttaliku li nga xamante ne nii mooy démb mu nekkoon koo xam ne ku def lu bari ci làmb la yàlla dogal na nag jóge na fi tey dem na ci këru dëggam ñuy ñaan yàlla sunu borom mu xare ko àjjana def na plus de soixante quelques combats cinq défaites la am ci histoire làmbam parce que Moussa Diame moo ko daan baabu Njambaan moo ko daan du euh, tubaabu joor moo ko daan manga moo ko daan mais également Robert Diouf moo ko daan mu nekkoon champion boo xamante ne ni histoire dina ko retenir turam dootul fay ci biir réew mi ndax jaar-jaaram euh, ñuy ñaan yàlla sunu borom yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko yàlla na ko yàlla yërëm atte ko ci yërmandeem xare ko fi nga xamante ne nii mooy àjjana di ko jaal nag Sénégal yëpp surtout nag le monde sportif rawatina le président des anciens gloires de lutte muy Manga 2 nga xamante ne nii moom it taxawaayam jekk na kenn merewu ko euh, kon mbokk yi